la def en tant que jeune moom fi mu nekk man je les encourage la politique c'est l'art de gérer la cité donc euh, ku yëg ne yow am nga ci wàll war nga mën a ñëw apport am loo apporté le peuple sénégalais mais pourquoi pas donc euh, wax na mën a nekk te initiative bu rafet la man je salue vraiment euh, son son son inten son intention de. de d' entrer dans la politique. est ce que mën nañu xaar kii di Pape Djibril Fall ak Queen Biz peut être ni bokk yow askan bi wala fenn. <laughs> yow na xam nga nee naa la doo ma wax loolu bëri dañ koy dagg denc ko ba ci conférence de presse. mais foofu moom dinaa dinaa wax. mais yan retours moom lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg. yan retours ngay am non retours yi moom c' extraordinaire. ah bon ah, vraiment. est ce xam nga est ce xam nga ni laajal kii nii nii dama daan impliqué wu di dégg ak ñoom tout le temps mais laaj ko saa bu mooy jot. tellement que mouvement bi dafa jël dafa dafa am ampleur bi nga xamante ne daf ma dépassé diaspora bi Sénégal àdduna ñëpp bëgg a bokk ñëpp bëgg a bokk donc à longueur de journée même le numéro de téléphone bi du noppalu te saa boo ko fayee boo ñëwee da gis ay des centaines xam nga de kii de message et de d'appel en absence nga xamante ne vraiment que nii man dama toog ba ci yàgg ma ne man lii nar na ma ëpp loxo de tellement que mais sant yàlla parce que boo wootee tàllal loxo nit ñi ñëw loolu dafa neex donc damay sant yi ci jox bopp ji ma jox bopp te li ma ci gën a neex mooy ni que ñu ci bëri dañu am ci man yaakaar ci seen ay message yi may yónnee dañu am yaakaar ci Queen dañ may wax ne Queen li ak lii ak lii moo ñu doon metti waaye yow gis nañ dëgg ci yow bi nga xam ne bu ñu ànd ak yow xalaat nañ ne lii dinañ ci génn yàlla bu yaakaar tas. merci Aïcha lan benn question boo xamante ne aussi bu mm-hmm. ñaata ñu laaj la ko parce question actualité la. Mm-hmm. ngay artiste ñu gis euh, tey bu ñu artiste ne culture. Mm-hmm. Euh, théâtre kat bi ci la bokk waykat bi ci la bokk. mais récemment ñu gis euh, sa benn mbokku artiste boo xamante ne ñu ngi ci milieu cinéma. di Mariam Diallo. récemment gis nañu vidéo yi nga xamante ne sénégalais ñu ngi koy publier. mu amee nga xamante ne tey moo di dépression. ni nga xamante ne noonu la ko sénégalais di gisee ci internet bi. lan nga gis ak lan nga ciy wax Sénégal ci li ko metti na de vraiment parce que xam nga dépression dafa nekk lu doy waar dafa nekk ah man na xawma ci yan condition la nekk ak fan la nekk parce que ñi ngi doon wax Côte d'Ivoire la nekk mais su ma sañoon ah ñu ñu dem ko jël euh, mu nekk ci benn environnement bi nga xam ne dina nekk ak nit ñi mu bañ a nekk moom kese parce que feebar la rek mën nañ ko faj lay deñ mais il faut que mu am assistance nit ñu jàppale ko mais du moment que moom mi ngi dem bay dugal ci internet bi kon saa veut di que ni elle a accès xam nga ci réseau yi kon nag aussi ñu nekk si si ci réseau yi nañ ko jàppale di bañ a dugal de message offensants di bañ a dugal de des commentaires yi nga xam ne c'est ça dafay offensant comprendre nga ñu bàyyi loolu xel parce que kuy dugal mi ngi xool mi ngi xool te dina lire dina gis te parfois day am yenn affaire yu ndaw yoo xam ne mën na la choqué wala di la heurté même ko amul dépression sax da lay metti asama laag yow nga ne ñu ne kii elle est donc nañ ko jàppale c'est c'est c'est des choses de la vie ça peut arriver à tout le monde ah ça peut arriver à n'importe qui donc nañ ko jàppale bu baax a baax a baax en tout cas Marème Diama je suis de tout cœur avec toi ah, yàlla dafa def nag xëy na man xaw ma ci fan la nekk ak lu mu kii mais wax dëgg fa yàlla ñun sénégalais yi nañu booloo ñu jàppale ko suñu doom la. Mhm. doomu Sénégal